Merci beaucoup la régie pour cette très belle chanson dédiée Kenzo nekk un chanteur ougandais ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, li mooy yàlla Sénégal on allie l'utile à l'agréable juste pour vous faire plaisir waxtu wi jot na nag euh, ngi rek ñu daal di dalal euh, sunu ay gan agsi nañu ñu ngi ci plateau bi tey nag mbokk yi am nañu mbégte dalal ci plateau bi ki nga xamante ni moo di monsieur Ibrahima Mboup nekk président de l'Alliance nationale pour le changement nekk itam candidat déclaré à l'élection présidentielle 2024 ñu ngi lay nuyu c'est un plaisir ñu lay dalal ci plateau bi. merci beaucoup jërëjëf madame maa ngi leen di nuyu euh, di nuyu waa Allô Sénégal di nuyu waa Sénégal de manière générale euh, di leen gis également ci invitation bi ñu def. merci beaucoup. Euh, dalal ak jàmm ci plateau bi itam mbokk yi am nañ fi ki nga xamante ni euh, moo di docteur Mbaye Cissé nekk docteur en droit euh, chercheur spécialiste en études de droit comparé membre de la société civile ñu ngi lay nuyu bu baax a baax docteur c'est un plaisir ñu lay dalal. sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin xam na su ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu euh, président di nuyu également Thiam ak ñu fekk si plateau bi yëpp di nuyu également ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk station bi yëpp di fi liggéey au niveau de la 7TV. Euh, euh, dal leen ak jàmm yéen itam ñu leen di jaajëfal euh, ci li nga xamante ni moo di seen disponibilité alors monsieur Mboup vous êtes président de l'Alliance nationale pour le changement quand on parle de changement on parle de rupture aujourd'hui lan ngeen gis lu doxul ci réew mi ba tax ngeen bëgg un changement bëgg indi une rupture. ok question bi am na solo trop boo xoolee Sénégal fi mu toll nii dañuy gis ni secteur yu bari dara doxatu fa. te toll nañ foo xam ni nit ñi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi kenn amatul yaakaar ci réew mi moo tax aussi jeunes yi pour la plupart di génn di jël gaal yi di dem parce que dañu toll jamono joo xam ni même xale yi boo leen xoolee dee moo leen gënal dund li ko waral mooy amatuñ yaakaar loo xam ne war na leen mën a téye ci dëkk bi donc dafa jot fi mu nii ñu changer doxalin ci secteur bu ci niveau yëpp ci secteur bi yëpp bu ko defee ñu jël Sénégal yóbbu ko fi nga xam ne moom la ñuy séntu ci nit ñi ndax boo xoolee changement dafa nekk loo xam ne dafa war a am ci dëndu Afrique lu ci Sénégal rek de ndax boo ko xoolee eh, ñi nga xam ne ñoo ñu wër nii eh, réew yu si bëri coup d'état dafay am mais liy indi coup d'état yi lu si bëri mooy nit ñi dañoo bëgg changement dañu bëgg a jëlee li nga xam ne moo fi nekk ak doxalin bi xam ne moom lañu ñu doon doxali donc changement bi dafa nekk loo xam ni dafa war a am te ñun dañuy dox pour changement bi am bu ko defee sénégalais yi gis seen bopp ci ni ñuy yore réew parce que aussi yorinu réew bi yorin boo xam ni dafa doy waar moo tax nit ñi sawaratutu ñoo toog ci Sénégal parce que gisatu seen bopp ci réew mi donc loolu bu amee dañuy xoolaat suñu bopp parce que il faut ñuy def benn analise parce que aussi bilan dafa baax ci lépp boo demee ba ci kanam da ngay deltu ginnaaw nga saytu li nga xam ne moom nga defa def xool la nga ko réaliser bu fekkee li ñu fi def bilan bi lépp dara euh, lu ci bëri na sax na baaxul donc dañuy war a taxaw seetlu. li nga xam ne ñoom ñoo yor réew mi ñoo ñu dugal ci situation bi ñu nekk ñu jëlee leen fi indi fi laneen lu bees muy Sénégal bi nga xam ne Sénégal bëpp boo ci gis dina ci gis boppam réewu mën na ñun liñ bëgg a tabax ci suñu projet politique loolu moo tax ñu engagé wu en politique pour mën a changer leen la donne ndax changement dafa jot te dafa war ci dëndu Afrique fi mu toll nii rawatina Sénégal. Euh, ANC ñu ngi ko créé il a un at lay tolloon. yaa ngi koy wax léegi seen intention mooy changer yow nga samp sa ndënd euh, j'aimerais bien savoir choix bi nga def pour sote étape bi yëpp parce que su ma nee sauter étape bi mooy Sénégal baaxoo nan au moins euh, ku ku ñu kuy daggaan baatu réew mi ñu xam la moo xam da ngay def politique wala defoo politique parce que société civile bi aussi euh, dë dëkk bi dina am ci fa mu féete mu am membre société civile bu taxaw Euh, wane boppam wala nga nekk politique rampe rampe ba ñu xam la nga jiite maire wala jiite euh, euh, nekk ci commune ci ci ci collectivité territoriale yi donc loolu noonu yëpp dégguñu la parce que honnêtement ñun xamuñu la bon man xawma la man mii di wax parce que même les recherches que je devais faire pour préparer euh, suñu interview j'ai pay pas eu beaucoup de choses en fait donc lan moo waral nga nga jëkki saay rek xàcc Euh, présidentielle bi alors que peut-être mënoon nga njëkkee. Mhm. ci état bi ba ba ba moins nit ñi xam nan fan lañ la mën a nan lañ la mën a nattee lan moo waral choix boobu. bi am na solo trop laaj bu am solo la mais loolu boo ko gisee li ko wund mooy situation fi mu toll fi jamono ji toll moom mooy laaj engagement populaire boobu te am naa benn parcours politique boo xam ne aussi depuis que ma nekk étudiant ba léegi am naa benn parcours politique. li desoon xëy na mooy benn visibilité bi mais aussi. Euh, parcours bi la parcours bi euh, nekkoon naa secteur général bu mouvement des élèves étudiants bu ànd jëf après mu jóge fa nekk secrétaire administratif bu réagi réseau de enseignants bu indi jëf donc yooyu posture yoo xam ne occupé naa ko sur le plan politique te aussi gox bi nga xam ne falaa nekk euh, falaa ëpp lu may nekk. am na ay réalisations yu fa jot def. muy fan muy Caajaay. d'accord donc Caajaay mettre naa fa en place benn mutuelle de santé boo xam ne jusqu'à maintenant mi ngi dox donc man je m'investis dans le social loolu moo tax bi ñu demee ba àgg ci posture bi ak Sénégal ni mu xoo ñu am suñu yenn expérience yoo xam ne mën nañ ko ci ko mettre ak contribution ak suñuy xale ak suñuy xalaat ñu ni pourquoi pas ñu engagé wu par rapport ak li ñu xam ne moom la jot a xam parce que aussi réew du da ngay ñëw rek benn jour mu nga yeew rek daal ni da laa di laaj il faut nga am en amont benn background boo xam ne xam-xam boo xam ne dina la permettre yow boo ñëwee nga xam fi ngay teg sa tànk te loolu am na fi donc ci à la base de tout ça ci la ñu jël décision porter suñu candidature dem ci élection présidentielle yi c'est juste que présidentielle wii yeneen élection yi non parce que tout simplement euh, ni ñu doon doxalee surtout avec la présidentielle la situation bi ni mu jaxasoo ni dafa indi ay frustration yu bëri frustration yi lu ko indi mooy déception bu ngandal nit ñi Sénégalais yi am ci li nga xam ne moom la dëkk bi di doxee yaakaar bi ñu amoon ba porter le président à la du pays mais déception bu ko ëpp moom la am bi ñu ko bàyyee mu doxal par conséquent ku ci nekk fa nga nekk am nga yéene indi lu bees indi ay coppite pour Sénégal jóge fii mu nekk dellu foofu fële parce que. xam-xam pour mën a diriger loolu certes c'est vrai mais est-ce que su ñëpp defoon noonu aussi tamit ñu ñëpp duñu nekk candidat pour présidentiel Euh, pour pour pour dem si dem dem si élection yi ba lu nga wax dégg naa discours bi am na solo mais bon euh, peut-être posture bi nga nekkee la que yaa ngi doog a doog a ñëw constat bi Kajoor def man aussi tamit mun naa ko def. Mhm. nga circuité lu nga xamante ne moom mooy parce euh, que traditionnellement en politique Sénégal c'est pas c'est pas comme ça Kajoor a parfaitement raison et puis bon je le rejoins sur ce point même lu ma bëgg laaj par rapport ak sama sama question moom mooy un an nga créé seen. Euh, lan la parti mouvement la wala parti politique waaw mouvement un un an lan mooy boo doon def bilan aujourd'hui de de là à là parce que Kajoor wax na la ko est-ce que jàppoon da nga circuité yow nga ni circuité circuité wuloo euh, sinon ban bilan wala ban discours wala ban réflexion wala ban apport nga mën nga àndi diggante boobu noonu bi nga créé 2022 ba léegi sa mouvement nga xamante ni mën nañ ci teg loxo ni yow lii nga apporté dans le champ politique loo xamante ne lu lu concret ba nga xamante ne sénégalais dina def la confiance lan lan lan la. alors euh, par rapport ak euh, suñu parcours bi gàtt na c'est vrai mais parcours bi riche la également parce que ça nous a permis de mieux comprendre les sénégalais de mieux les connaître ndax mooy leen li ñu ëpp lu ñu def mooy dem ci askan wi jige leen xam lan mooy seen problème réellement. ba pare ñu essayer élaborer ay stratégie yoo xam ne buñ ci joonee mooy ay yoon yoo xam ne bu ñu ci jaaree yaakaar nañ ni suqaliku Sénégal dina mën a nekk foofu donc loolu c'est un bilan purement humain plutôt que matériel pour ñu permettre mën a gën a xam Sénégal parce que aussi mënu ba nga leen jiite ay nit il faut nga dem ma daje ñoom xam lan mooy seen problème seen jafe-jafe majeur parce que du ñu toog xalaatal suñu bopp ni bon li moo war a nekk jafe-jafe Sénégal yi lii lañ ko war a saafara Ah, c'est que c'était un de fourmi boo xam ni ñun ñëw sur le terrain on faisait le travail on faisait on euh, des gens à travers des visites de courtoisie ak ay euh, bon VAD ak ay euh, forum yu ñu doon organisé. juste pour essayer mais mais opinion bi aussi lu ñu mën lu ñu xalaat si yow aussi c'est important. c'est parfaitement waaw opinion bi lu ñu xalaat si nit ki c'est important parce que bu fekkee da nga def travail de fourmi boo xamante ne personne n'est au courant. Mm-hmm. loolu aussi wala d' accord wax si loolu si si si si si parce que je reconnais que benn visibilité bi parce que aussi ñu bëgguñu woon a médiatiser en fait euh, la la chose. mais il le faut tout ce qu'on a eu à faire on n'a pas jugé nécessaire de médiatiser ça moo tax dañ doon ah. ça que c'est pas une faute politique en ben voulant euh, faire euh, déjà vous en êtes à votre début, mm vous faites des activités, euh, vous faites dans la prospection. Voilà, vous faites dans la prospection et, et, et, et vous, vous passez inaperçu. Est-ce que loolu après ça va payer parce que vous allez vous mettre à dire on a fait ça et ça et ça alors que ki lay seetaan munu ci munu munu am lu ko lu koy firndeel. absolument absolument absolument loolu je suis parfaitement d'accord je suis en phase ci ci li nga wax. mais ñun li ñu gënoon a yëkkati. Mhm. mooy liggéey pour askan wi. te bon dañuy jugé ni bu ñu liggéey pour askan wi du jarul ñuy def trop de bruit mhm. parce que nit ñi def na trop bruit yu bëri. Mhm. te finalement dara dara génnul ci bruit boobu ñuy def. loolu am na alors docteur euh, lataa ñu ñëw sur des questions juridiques sénégalais nga yaa ngi ci dëkk bi euh, cette pléthore de candidature nga xam ne ñu ngi koy gis te jëmaguñ ci 2024 élection yi ñaata ñu ngi ci ñaata 200. voilà dépassé nañu deux cent ak euh, voilà deux cent soixante-dix-sept candidats déclarés aux prochaines élections présidentielles pléthore boobu yow naka nga ko gisee. waaw xam nga déjà loolu. waxoon naa ci le caractère pléthorique des des candidatures euh, déjà man li ma ci waxoon déjà sama analyse personnelle la dama ni c'était juste parce que normalement dañ ci waroon def expertise xool ba xam lan la parce que pour man. dama jàpp ni euh, c'est une subterfuge du côté de l'État rien que pour justifier le refus d'appliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO bi ne nañu nañu fi dindi pare pare parrainage léegi pour se justifier il faut que mu ubbi bunt yi n'importe qui mën parce que doo xam doo xam si am na si ñoo xam ne peut-être soit euh, doyen Mboup mën na ñëw en tant que initiative bu boppam mais am na si ñoo xam ne mën nañ ñëw ñoo xam ne parce que euh, état moom moo leen di moom moo moom moom moo leen di piloté ñu dem jëlee ay parrainage donc foofu aussi analyse la si ça dépend parce que nombre pléthorique bi amul amul amul amul sens mhm. amul sens élection présidentielle n'est pas n'importe quelle élection n'est-ce pas c'est pas parce que da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay parce que y a y a des fiches de parrainage nga dem rek jël yaa ngi dégg dugg sur le terrain déjà problème parrainage déjà gars yi ñu ko commencé di rencontrer mais man fi ma accès woon sama réflexion. Mhm. mooy mooy mooy je pense que ni je pense que ni ubbi bi ñu ko ubbi euh, ba pare ba pare ci wàllu parrainage bi déjà c'était juste pour refuser en tant que en tant que euh, euh, état du Sénégal pour appliquer. maanaam décision de la de la cour pour justifier ko. Mhm. parce que cour de justice dafa ne nañ fi jëlee parrainage bi. moom da ko da ko da ko décider teg ko de côté léegi état bi déjà appliqué wul décision bi parce que dafa invoqué la souveraineté nationale Ismaïla Madior Fall te mënul nekk souveraineté nationale sax c'est juste une limitation de souveraineté ce n'est pas une négation de souveraineté mais bi nga xamee ni ñëw nañu gis nañu ubbi nañu campagne kii bi comment dirais euh, pour parenage bi nga gis ni y a un nombre très pléthorique ñëpp di dem di jëli du camp du président y a y y a énormément de un certain nombre de kii du camp de l'opposition y énormément ak ñeneen ñi nga xam ne ay candidatures indépendants lañu man loolu noonu rek laa ko mën a analyser quoi. Mm-hmm. noonu laa ko mën a analyser. Euh, faay la boo si suñu législation. le fait que nu ñu encercler euh, par exemple bu fekkee da ngay dem élection présidentielle nga xam ne conseil constitutionnel dafay arrêté di tel tel tel ñoom ñooy dem élection présidentielle parrainage yi amul loolu porte ouverte la ku ne ku mën a ku mu neex ñëw est-ce que le fait que ñu encadré wu ñu ko foofu noonu ça pose pas un problème ba nga xamante ni sax mën nañu mën nañu wax ne sciemment état sur le terrain mën na parce que problème mu doublon mën na mën mën na posé parce que bon on l'applique pas si loi bi nga xamante ne moo moo soxal affaire parrainage wax nañ ni nit su fekkee dafa parrainé kii parrainé kii yow mën nañ la poursuivre justice alors bon man pour man loolu c'est ridicule que le fait que nga parrainé kii parrainé kii ñu mën la topp di lay amende wala ñu lay tëj ci kaso bi est-ce que nekkul faay boo xamante ne si législation bi le fait que ñu tijji ko complètement ku neex dem jëli parrainage ba nga xamante ne aujourd'hui moom moo ñuy indi si situation bi ñëpp di ñaxtu très bien xam nga loolu mooy faille principale bi parce que boo xoolee loolu li ko indi mooy dans le cadre de la législation depuis des années boo xoolee régime en place bi euh, règle juridique yi muy jëli toujours da ngay gis ni dafay nekk dafay nekk ay loi yoo xam ne toujours dafay am benn caractère bu personnel am benn caractère bu non général toujours am na ko ñuy sible loolu mooy indi faille yi bu fekkoon mu nekk loi bu général bu impersonnel de manière générale là automatiquement dinañ ko mën a encadrer juridiquement wane ni même bu fekkee da ngay jëli parrainage même bu fekkee parrainage imposé da ngay jëli parrainage ñu war ko encadrer nii war nga nekk parti politique parce que looloo taxoon man ma ne woon euh, parenage man d'accord ma ci bien avant même la la CEDEAO di ci di ko di ko déchirer n'est-ce pas euh, euh, parce que man li ma jàpp. mooy parti politique parti politique dañ koy rationaliser no munuñu ko mënuñu parti politique mënuñu ko rationaliser parce que moom président li mu invoqué woon loola la rationalisation des partis politiques mais parti politique mënoo ko rationaliser en amont il faut en aval parce que parti politique dafa am nu ñu koy définir il faut que nga am benn représentation national am benn représentation locale di def ay réunion périodique di def ay congrès nest pas di di def di def ay cotisation am système de gouvernance bu bu local mais également bu régional ñu structuré ko. mais parti politique yi fii Sénégal loolu amul. léegi avant ñu lay jox récépissé bu ñu la imposer lu mel noonu ay ay ay ay ay ay paramètres yu yu yu drastique avant ngay jot sa récépissé wala avant ngay ñu lay reconnaître comme mouvement. mais à ce niveau mën nañu wax ni rationaliser ni parti politique bi mais problème bi mooy problème bi mooy encadrement juridique bi moo baaxul encadrement juridique bi dafa bëri ay failles la plupart des lois sont des lois personnelles et sont des lois non générales wi euh, lu ñeel actualité judiciaire bi ak li nga xamante ni moo xew Cour suprême nomination yu yees yi nga xamante ni euh, jur na polémique ban lecture nga am ci loolu. waaw loolu déjà bindoon naa ci benn article que li ma ci wax. mooy le président de la République a violé le protocole additionnel de la de la CEDEAO portant sur la démocratie et la bonne gouvernance bu bi xam nga protocole bi ak plus également le code électoral en son article 7 parce que protocole bi dafa ni membres yi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci processus électoral bi comme Sénat dañu war a nekk ñu indépendant n'est-ce pas non seulement dañu war a nekk ñu indépendant mais à six mois des élections waruñu changer benn opération ci processus électoral bi te le fait que ñu changer les organes xam nga ñoom ñooy gérer tout ce qui est du processus électoral donc bu ñu leen changer ça veut dire que on a on a changé les opérations du vote c'est comme si un arbitre qu'on change au au moment même du du match xam nga loolu c'est c'est impossible déjà xëtt nañu charte CEDEAO bi mais également code électoral tamit loolu da ko wax dafa wax ni membre Sénat yi dañu war a nekk ay nit ñu indépendant te gis nañ ci koo xam ni dafa affiché participe dafa affiché euh, ancrage politique am au niveau au niveau au niveau au niveau de de de de la coalition Benno Bokk Yaakaar mu nekk ay violation également yu yu manifeste yoo xam ni yoo xam ni ñëpp si teg seen ñëpp ci teg seen bët loolu déjà problème la. ñëpp teg ci seen te kenn ci dara. waa kenn mënu ci dara parce que actuellement xam nga problème bi mooy actuellement du ay règles juridiques ñoo nekk du gouverner mi mais doole mooy actuellement mooy gouverner réew mi du règle juridique parce que boo xoolee boo xoolee parce que même la président de la république bi mu waxee ni bi mu waxee ni euh, bi muy bi muy renoncer ci sa troisième candidature dafa wax ni on va tout faire pour l'application de décisions de justice loolu on n'a pas besoin de le dire un président de la République n'a pas besoin de de le dire les décisions de justice sont sont décidées pour pour pour pour pour, pour pour être appliquées pour mm-hmm. être exécutées dans toute sa rigueur n'est-ce pas parce que justice également moom moo yor réew règle ay règles juridiques moom moo yor réew depuis mm-hmm. la constitution jusqu'au jusqu'au règlement c'est le fondement qui légitime les règles juridiques mm-hmm. n'est-ce pas mais bu ñu demee ba état si la ñuy gis en tant que état moom mooy jalgat yoon là ça devient ça devient quand c'est un, un, un professionnel du droit qui me rejoint quand je dis que le droit n'est pas en train d'être dit au Sénégal euh, là je je suis au moins revenu mais man fi ma la bëgg a euh, ma question euh, c'est par rapport à, à la la prise en charge euh, des carrières Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy magistrats yi en tout cas les les les les gens qui décident là les juges et autres euh, gis nañu ñoo xam ne parfois dañuy dañ leen ni dañuy euh, si je prends le cas du du juge bi bi joxe décision am fële à Ziguinchor on a vu une structure ñu envoyé ko foofu pour mu dem auditer ko on n'a pas compris trop compris la chose mu mel ni benn acharnement ak ñoom tey juge boo xam ne. tu décides en faveur de l'État, tu n'es pas inquiété. Tu décides en, faveur, en, en défaveur de l'État, euh, tu es inquiété. Euh, au sein de de, de, de, de, la famille, du droit, de la justice, euh, ban taxawaay la ñu mën a am pour ne serait-ce que préserver la dignité de ces, de ces, de ces hommes de droit qui ont décidé de dire le droit mhm. sans pour autant se préoccuper de leur euh, carrière, en fait. waaw di nga may ma rebondir sax d'abord avant may ñëw foofu ci question wu madame bi léegi. Mhm. parce que man newoon naa sax déjà euh, le choix en tout cas porté sur euh, sur les nouveaux membres du du Sénat man déjà awma ci woon sax problème déjà donte ne dénoncé na dénoncé nañ ko en tant que juriste n'est-ce pas en tant que spécialiste. mais euh, def naa ci beneen beneen réflexion wane ni même bu fekkee le choix est illégal ñoom ils sont dans dans l'illégalité problème mën na bañ am foofu dans le cadre de l' application parce que au nom du principe de la continuité du service public et au nom du du du principe de la chose décidée les nouveaux membres du Sénat mënuñ jël beneen décision bu contraire ak bi nga xam ne moom la Doudou Ndir jëloon. c'est la continue ñoom ñoom fi ñuy acte bi ñuy jël de la Sénat. de la Sénat je veux dire. Okay. c'est juste un de la Sénat n'est-ce pas la commission nationale électorale autonome je veux léegi léegi léegi décision bi nga xam ne décision bi nga xam ne du dundi jëloon na ko. actuellement président bi je l'ai vu hier euh, mu mu mu mu prêter serment. mais le point de suivre ah. su ma dégloo discours am il est pas dans les dispositions de de poursuivre ce que ce que mm-hmm. li fi kii bàyyi. oui certainement parce que tout le monde l'a écouté parce que il a dit pour les pour les pour les pour les euh, comment dirais-je candidats électeurs il l'a dit devant tout le monde. c'est la question. électeur même de de de de de la candidature qui est en question. waa ma ma eggale tuuti rek daf ma dog léegi léegi léegi moom premier acte bi muy njëkk a bi mu mm-hmm. war a njëkk a posé mooy jël les fiches de parrainage jëbal ko jëbal ki nga xam ne moom mooy mandataire Ousmane loo rek la mën def mënul def leneen les nouveaux membres du Sénat amuñu lu ñuy xaar ci décision justice bi jógee cour suprême amuñu lu ñuy xaar ci décision de justice bu jógee cour de justice de la CEDEAO dafa mel ni la la saqaafee candee la faal amul lu muy xaar ci cour de justice inséré nañ ko parce que moom organisation matérielle structurelle bi la yor ak la logistique kese la yor. su fekkee su fekkee juge Ziguinchor bi jël na euh, décision en faveur de Ousmane Sonko que état Sénégal par l'entremise par l'entremise de de l'agence judiciaire de l'état mu déposer recours ñu ne recours bi c'est suspensif. par rapport à la décision loolu mën nga ko comprendre. mais le recours n'est pas suspensif. Ah, loolu c'est ce que l'État a dit. non non loolu non c'est le recours n'est pas suspensif. alors si nous revenons justement ci question parce que faut ñu avancer aussi par rapport au temps par rapport ak li la Kajoor posé ci les hommes de droit ak seen carrière. waaw xam nga loolu déjà faille bi mooy ci le conseil supérieur de la magistrature président de la République daf ci nekk membre muy première faille nest te normalement président de la république warul am pour dugg biir conseil supérieur de la magistrature pour mën a contrôler en tout cas magistrats yi magistrats leen war a leen war li leen war a mooy mooy benn benn seen loi spéciale bi nga xam ni mooy la loi portant sur sur la magistrature seen carrière ñoom ñoo ko war a gérer bopp mu nekk ay lu mel ne ay appel à comme par exemple bu la bëggee fal président de la par exemple mu nekk benn appel à candidature benn cabinet cabinet externe mën nañ mën nañ ko gérer ñu teg la fa bu boobaa dafay nekk loo xam ne dootul président moom moo lay surveiller dootul mhm. ministre de la justice moom moo lay surveiller mais dafay nekk loo xam ne lu indépendant la dafa mel ni dafa mel ni rôle procureur lien de lien de euh, lien de kii bi am ci entre procure parquet ak ministère de la justice xam nga parquet daanaka boo xoolee dafa nekk à cheval entre ministère de la justice ak ak euh, entre entre exécutif ak ak judiciaire te loolu France dindi nañ ko depuis 2011 parce que ñoom dañu teg lu ñu naan benn poste bu ñu naan le juge de la détention et des libertés parce que mënoo nekk procureur di poursuivre ba noppi nekk maître nekk nekk nekk nekk partie au procès d'accord gis nga ambivalence boobu loolu mooy indi suñu problème justice toujours président day am droit de contrôle si d'accord alors a waxtaane lépp lan nga ciy sànni ci ay kàddu laataa ñoo ñëw euh, ci seen alliance bi voilà merci euh, solo trop euh, li Cissé wax te dañ ci retenir surtout le problème majeur mooy les membres du Sénat hmm. parce que ñun bu ñuy wax ay élections inclusives ak ay élections transparentes je pense que ci processus bi yëpp la war a mën a xool doo ñëw ba ci au dernier moment muy ele muy jour jour vote bi nga door ci impliqué nit ñi donc tous les acteurs doivent être impliqués ci biir processus bi maanaam ci doxalin bi yëpp fépp fu ñu mën a jaar mën nañ fa mën a dugal les différents acteurs ba tax na man li ma doon euh, xool kii ki euh, ci waa Sénat bi pour ñu bëggee ay élections yu transparentes yu inclusive dañuy associer ci membre Sénat bi par exemple les partie politique associés ci euh, la société civile associés ci également les observateurs internationaux bu ko defee loolu dinañ am benn groupe boo xam ni. c'est mhm. un groupe hétérogène. bu xam ne ñëpp dinañ ko participer ci processus bi bu boobaa processus bi dina gën a leer bu ko defee seen décision yi ñu def seen yëfi caaxaan yi ñu def dootuñu ko mën a def bu boobaa parce que quoi que l'on puisse dire mooy euh, affaire bi seen ni ñuy def ni manœuvre yi ñuy def ni c'est juste calculé et très très bien mûri pour essayer d'entraver un peu ñenn nit yi ñoo xam ne war nañoo mën a bokk ci élection yi. bu ñu ñëwee ci alliance euh, nationale pour le changement est-ce que am ngeen benn représentativité ci dëkk bi. bay au niveau national on est très présent. Hmm, nit ñi ñu ngi leen di parrainer. non. ñu ngi leen di parrainé ñu ngi leen di ñu ngi ñuy parrainé bu baax. Hmm. ñu ngi ñuy parrainé bu baax ñun suñu parrainage franchement on n'a pas encore ce souci là. nit ñi ñu ngi ñuy parrainé bu baax. Hmm. te d'ailleurs parfois sax dañuy dañuy woo naan ñu bon envoyé ñu envoyé leen ñu seen fiche donc ce qui veut dire que ñun suñ parrainage mi ngi dox vraiment ñu ngi ci dans la bonne voie on n'a pas ce souci là. en en en termes de programme lan nga ñuy proposer. alors euh, programme dafa yaatu. ak yi gën a axes yi gën a mag voilà les grands axes. voilà secteur yu bëri mais li nga xam ni moo nekk euh, programme kii projet phare yi au-delà de la justice comme ni ko waxee nii parce que ñun dañu gis ni justice moom vraiment doxul amul indépendance indépendance des pouvoirs moom dañ koy teel a définir. parce que problème yi am yëpp problème justice moo ñu ko indi euh, li ci des muy lépp projet économique mm-hmm. il va falloir parce que loolu lañ gis ko Sénégal li mu am ci ay ressources yëpp pratiquement bénéficier wu ci comme ni ñu ci waroon bénéficier wu dañuy gis ni li dañuy li ñu am lépp dañ koy exporter te bu ñu dëkkee ci exportation matière première dañuy ñëwaat jëndaat produit produits finis te loolu dafay indi ay dysfonctionnement te mën na gàllankoor également suñu suñu sunu suñu économie boo ko def à telle enseigne dañu jàpp ni mën nañu créer ay zone industrielle spécialisée bu ñu créer ay zone industrielle spécialisée dinañu permettre matière première bi nga xam ne moom la ñu am ñu exploiter ko fii def transformer ko ba am produit fini exporté mm. parce que aussi ci ci ci contexte boobu rek ci lañ mën a favoriser davantage euh, emploi emploi des jeunes ndax bu ñu créer ay industrie dina euh, développer également l'agriculture lu ñu fi bay comme par exemple euh, je donne l'exemple de l'arachide gerte gi ñuy bay fii mhm. dañ koy jël exporte ko jaay ko chinois yi mais exportation boobu ba pare de l'autre côté ñuy importer de l'huile dafay am benn paradoxe quoi buy am ci kii bi. Hmm. de ce dañu war a ñëw jël produit produit matière première bi ñu transformer. exploité ko hmm. donc je pense ñun loolu aussi. nga xam ne ci gerte gi dinañ ci mën a am diwlin. Prodac looloo ko hmm. taxoon jug malheureusement. <laughs> on en a fait autre la am Sonacos la puis la ne. donc il ñu xalaat dans ce sens là ñun suñu projet pari si c'est axé autour de de de de ces njàng mi ban xalaat ngeen ci am. njàng mi moom. ñàng meeg ñàngale bi bokk waxuma la changé sax mais njàng moom dañ koy dañ koy dañ koy révolutionné révolutionné parce que euh, ndax euh, contenu yi nga xam ne mooy moom la ñuy jàngale mais li contenu éducatif dañ koo dañ lépp leen a waroon a dépassé c'est obsolète maanaam Sénégal avant muy am indépendance ba léegi lañ doon jàng moom la jàng ba tey alors que dëkk bi àddina de dox ba toll foo xam ni buy dox dangay war a dox ànd ak moom mais àddina mënul dox jamono di dox yow ngay def sur du sur place loolu mënul nekk. mbaa ngay reculer. mi ngi noonu day lay wax tubaab danaan kii n'avance pas recule donc loolu mooy suñu problème majeur il va falloir que ñu xoolaat système éducatif bi defaraat ko contenu yi programme yi contenu ñu changé ko bu baax a baax a baax. pour méngale ko jamono. bi ci des mooy. Mm-hmm, mm-hmm. dafa am ay jàngalekat yi aussi. dañu nekk ci situation yu misérable yoo xam ni mënu leen comprendre parce que am na jàngalekat yoo xam ne ba tey jii formé leen au lieu que ñu formé leen mais dañ leen a bàyyi nii. amuñ formé wu leen amuñu plan de carrière amuñu dara mais loolu aussi c' est une injustice à réparer. jàngalekat yi kat ils sont bien payés yow tamit. ngeen non non non non non waxul côté paiement ah, formation bi la yor ah, je euh, pour pour man si pécule bi sax ngay wax. non même loolu parce que aussi c' est à des niveaux différenciés. mais am na ci ñoo xam ni franchement dañ ñoom dañuy grève sax pour kaay leen formé ma di ci grève nit ñi bañ duñ leen formé. d'accord ñu def tour de table bu mujj Kajo. waaw man sama tour de table question lay doon. d'accord monsieur euh, kii par rapport ak euh, situation réew mi euh, question justice moom sa sa sa sa sa se situe dans tous les niveaux à tous les niveaux mais li ma bëggoon xam mooy yow personnellement lan ngay xaar ci décision Cour suprême nga xam ne. Euh, daanaka ñëpp moom la ñuy xaar déew bi na ndakk wala du tàkk mais voilà yow euh, en tant que homme de droit lan nga ban genre décision moom nga xaar ne moom moo war a mën a jógee le 17 boobu noonu ñëpp di xaar waaw xam nga loolu maa ngi si doon préparé benn article sax naroon ko publié parce que gis cour suprême amul choix cour suprême amul choix beneen bu mu lu mënul def lu dul soit day rejeter recours day rejeter recours agent judiciaire de loi agent judiciaire de l'état bi wala mu jalgati yoon amul choix parce que gis nga gis nga juge juge justice su comment dirais décision Sabassy bi gis nga moo tax Sabassy c'est un grand juge il est très intelligent boo gisee décision bi di nga xam dafa jël décision parce que ko sécuriser dafa sécuriser décision bi parce que xam nga boo xoolee Ousmane Sonko il a été il a été radié sur le fondement de la de la décision de contumace bi mm-hmm. yaa ngi dégg ñu fa ñu ñu ñu ñu appliqué fa article vingt neuf article article L vingt neuf te L neuf bi mooy bu mujj bi nga xam ni euh, warul warul mën a sax appliqué wu à sa situation de cour parce que bërki dee lañ ko adopté mhm. yaa ngi dégg warul mun a parce que une une loi naa defee que pour l' avenir mhm. muy benn jalgati mhm. ñeem jalgati sax déjà beneen bi mooy bi nga xam ne mooy l' article cent sept li mu wax dafa leer une fois ñu arrêté la rek pour contumace une fois ñu arrêté la automatiquement liñ la liñ la liñ na war def mooy dañ la war a libéré dañ la war a libéré bu fekk wala su fekkee da nga da nga constitution. état bi waxul loolu ah. yow yaa wax loolu. non man waxuma ko de. Ah. non dama ne état Sénégal la nen nen. non man waxuma waxuma ko de loi bu man man bul ma xool xoolal loi bi. d' accord ah, d' accord c'est la loi loolu Ismaïla Madior lu mu wax. xam naa ne bon peut-être c'est politique et tout mais leneen wax ñoom. non non non bul appesanté ci li Ismaïla Madior wax. Ismaïla Madior il a enterré le droit déjà <laughs> c'est le fossoyeur du droit man moom man moom wax dëgg yàlla moo ma jàngal mais du ma appesantir ci moom ci lu muy wax. <laughs> parce que moom toujours li muy def moom kenn xamul kenn xamul lan la. Euh, l' li mu wax dafa leer c' est l' article 307 qui parle. Uh-huh. ki nga xam ne déférewul déférewul cas ci devant la chambre criminelle ñu juge ko par contumace même contumace boobu dañ ciy taxaw juge bi parce que en tant que légaliste dañuy dañuy jàpp ni contumace parce que juge bi moom moo ni contumace la ci décision bi. mais bu ñu ko analyser ci biti dañ xam ne lii du contumace parce que ba ñu koy jugé boobu mi ngi këram xam nañu fu mu nekk te contumace mooy ki nga xam ne ñi ngi koy wër kenn xamul fu mu nekk n'est-ce pas mais boo ko barricadé pare def sa justice def sa rendre sa décision ne contumace la loolu dañ ciy mën a basé wu rek en tant que juriste pour mën ko interpréter noonu. d'accord n'est-ce pas. alors mais waa rapidement on termine. waa tuuti rek ma eggale. Mm-hmm. mais cour suprême laa ne moom amul choix parce que waa ji dafa sécuriser décision parce que daf ko jaarale ci. maanaam absence de publicité bi nga xam ni procédure bi loolu la laaj te loolu dafay nekk loo xam ne lu leer la da teg loi bi nii rek gis ni lii lii lii lii rek la war a mën a appliquer parce que la la la cour suprême n'est pas juge de fait c'est un juge de droit. Mm-hmm. moom li muy xool est-ce que Sabassi a bien appliqué la loi ou non. d'accord okay. question. bi être dernière question bi euh, wax na ni caajaare dëkk au mm-hmm. début. caajaare. la mooy sa relation foofu at le maire Ouma Youm foofu noonu. est-ce que fait bien son travail là-bas wala. bon euh, relation avec euh, monsieur Lebert bon c'est un allié un grand euh, je dis un grand frère parce que on a eu avant à travailler ensemble parce qu'on a eu à travailler ensemble quand même. dans quel cadre. bon pour le développement. de local. D'accord. Je, mais que depuis bi ñu ko élire maire il est en train bien wala noo ko gisee. boo c' est un bilan mitigé. wala bëggoo si wax il va falloir que ñu c' est un bilan mitigé en fait parce que il n'a pas répondu à toutes les attentes de la population là il faut le dire. dafa lajj quoi. bon a lajj à fait mais li ñu doon séntu ci moom lépp def ko quoi. <laughs> donc euh, quelque part mais da ngay euh, raay raayal affaire yi sa xarit la c'est que je veux être très objectif quoi. je veux être très objectif ok je c'est ça euh, li ñu séntu ci lépp moom lépp defu ko. certes am na lu mu réalisé mais liñ séntu loolu def ko. Mhm. merci waaw agent boobu Papa Djibril Fall noo foofu boo caajaayal dëkk noo gisee est-ce que muy def muy si maa ngi gis muy def si. ah. waa candidat la mais nan ko gisee quoi ma nan nga ko gisee Papa Djibril Fall foofu. Bon, est-ce c'est un jeu très ambitieux hein, et puis il est très ambitieux et puis ses gosses font sont là présents sur le terrain voilà. mais mënoo ko rejoindre yow nga dem si moom. ah non <laughs> mën nañu xaar loolu quand même c'est une possibilité. non non franchement là c'est une possibilité écartée d'office. donc nga xeeb quoi. mais non, pourquoi, non, non, du tout. pas du tout pourquoi contraire. du tout <laughs> ah. moom rejoindre moom suñu am moom yaay rejoindre parce que moom député la au moins. ah mais lu tax rejoindre ma le candidat du PUR. PUR ah, ah bon waaw. waaw si jaajëf la da koy waa jeex na. voilà c'est bon nee <laughs> na ko ndax danga ko xeeb quoi. <laughs> te ñëw euh, euh, que l'on puisse man maa leen gën a présent Thiadiaye. yaa leen gën a ah présent Thiadiaye. Ah, même Omar Youm sax. non duñ benn. ah Omar Youm du maire nga ne yaa ko gën a présent. duñu benn. ah parce que mais Omar Youm bu nekkee maire aussi. Mhm. il occupe d'autres fonctions. par conséquent man li ma fay nekk du ko fa nekk. ok ok merci beaucoup en tout cas jaajëfal nañ la bu baax a baax docteur merci beaucoup yow aussi monsieur Mboup merci en tout cas nous vous souhaitons une très bonne chance les idées sont là les idées sont là boo demee nga nuyu ñu waa Thiadiaye eh, xam naa ni dañ la dajalaat dalalaat bu ko defee ñu gën a yaatal programme bi gis nañ axe am na solo merci beaucoup nous vous souhaitons de passer une très belle journée en attendant le 17 ñu xaar Cour ndax li docteur di xaar ci ñoom wala li sénégalais ah <laughs> moom la ñuy xaar. sincèrement moi la cour de justice de la CEDEAO je je ne crois pas que Sénégal dina dina dina def dara. quelle que soit la décision là-bas on a on a. merci beaucoup.